Dakar di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii nga xam ne mooy ngën ji gan gi nga xam ne dikk na indaale mbégte mu baree baree bari di ko daral jàmm te di ko wax ahlan wa sahlan te amul benn lim ñuy jiital ci nuyoo bi ak ci ziar boobu Cheikh Amadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom defal ko gudd fan lool ak wér ba li mu yéenee liggéeyal maamam ju baax yi sunu boroom dëbb ko kàttan ak wér ba mu def ci lu kawe njortam di nuyu ak a ziyaar mbooleem ay rakam ak mbooleem kilifay yoonu murit ak mbooleem kilifay jullit yi ci réew mi ak ci àdduna bi yépp weeru koor nekk weer woo xam ne weer wu màgg la ci islaam alxuraanul karim wàcc ci laylatul xadar gi nga xam nit moo gën fukki junniy weer nekk ci muy weer woo xam ne gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fonkoon waaye it weer woo xam ne weeru barkeel la di weeru màgg ci yoonu murit ndax sëriñ bi déyee naa na ci ak boroomam ay yoon waaye sunu boroom it li nga xam ne digaloon na digoon na ko ko ci fay nee na ci weeru koor gii la ko ko joxe wax na ko ci wakaana xàqan ak yeneen ak yeneen kon loolu day wane ne yoonu murit moom weeru koor seen weer la ndax li ci sëriñ bi am ci ay xéewal loolu nag moo taxit saa su weeru koor jotee sëriñ bi daan na ko dundal fu mu mos a nekk ci mbooleem ay jaar waayam di ci roy sangam bu baax ba yonent bi sallallahu alayhi loolu it bawuñ noonu ba Tuubaa moom it ak fépp fu murit yi nekk rek bu weeru koor jotee dañ koy dundal bu baax a baax a baax ni ki noonu tamit daayira muxaddamatul xidma bi nga xam ne moom lañ dénk jumaa yi Tuubaa ji ñu ko saytu na gën a rafet aw saytun ñoom it ay at a ngi nii saa su koor gi jotee ñuy amal ay waxtaan ak ay dog di jox nit ñi ñuy berndeel seeni ru ak seeni bu ndogu jotee ñu jox leen ñu dog démb ubbi woon nañ jotaay bi ci weer wépp incha allah saa su nañu fas yéene koo ànd ak yéen di ñaan suñu borom defal leen ci tawféex ak ni ngeen ko bëggee yàlla defal leen ci lu kawee seen jot bu baax a baax a baax waxtaan yooyu ñuy amal nag tey jii it indi nañ ci benn thème boo xam ne bu dëppoo ak barab bi la waaye bu dëppoo ak nit ñëpp war koo bàyyi xel bu baax muy ku ne ci am réew sunu boroom daa wàcce nit ñi ci kaw suuf ngir ñuy dundal suuf si anshaakum min al di wastaamarakum fiha kon bu bindee ay nit ku ci nekk mu wuute lool fu mu dëkk waaye ku nekk fa nga dëkk ci réew ma nga ne noo fay dëkk daw dong dëkkoo fa dëkk nga fa ak say moroom yoo xam ne ñoo fa nekk te ku ne xam na ne ay nit fu ñu nekk ku ci nekk bu toppee bakkanam rek wala mu topp yi nga xam ne moom la bëgg te sàmmante wut ak yi ñeneen ñi war a bëgg ak àq ñeneen yi bu boobaa jafe-jafe mën naa am loolu nag kuy dund ci am réew wala ci dëkk da koo war a xam bu baax a baax ndax am na boroom xam-xam boo xam ne danaan fi say àq wala say yellee fi ñam foofu la bu sa morom tàmbalee kon war ngaa sàmm àqante kooku moom tamit yooyu yëpp nag bu ko nit xamee rek dana tax ba réew mi muy dund dana xam nan dafay dundee te jafe-jafe du ko am du lor tamit moroomam te yàlla bëggut kuy lor moroomam dëkkandoo yonent bi sallallahu nee na bu leen lor seen ay dëkkandoo ak yeneen ak yeneen loolu lépp ci biir loolu lay dugg moo tax daayira Muxaddamatul Xidma tàmm tem boo xam ne ñu ngi ko tuddee ki nga xam ne moo dëkk ci am réew yan àq la fa am ak yan warteef la fa am muy almuwaatana bayna al xuquqi wal waajibaat muy citoyenneté entre devoir et droit ki nga xam ne mooy dëkk cim réew daal yan àq la war a jëflante yan àq la am ci réew ma ak yan warteef moo ko war ci réew ma ki nga xam ne daa dëkk ci kër sax yan àq moo ko war ci kër ga ak yan warteef moo ko fi war ba boo demee boo xamee ñaar yooyu rek du lor moroomam te moom tamit du loru waaye ni ñu jël tomb boobu jox ko boroom xam-xam boo xam ne ku ne xam na ne ci wàll gi am na ci xam-xam bu baax muy le professeur Euh, Serigne bu sa Assane nekk directeur bu centre Serigne Mbacké Bousso di excellence bi nga xam ne mu ngi ciy def ay liggéey yu am solo ak beneen centre bi nga xam ne mooy bi nekk Xayra amaat ak yeneen liggéey yoo xam ne mi ngi koy yëngu ci dëkk bi di ko yëngu ci réew mi di bindkat di jàngalekat di yarekat di philosophe boo xam ne kuy teewlu ay waxtaanam jàpp naa ne bu ko ñëpp doon teewlu kon euh, yu baree baree bari ci ay jafe yi nga xam ne am na mën naa indi ay saafara yu bari ndax mën naa ne sociologue la philosophe la borom xam-xamu diine la borom xam-xamu euh, ci wàll gu bari la mën naa ne docteur la boo xam ne day faj euh, ràggi ràggi nit ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ci réew mi. looloo tax daayira bi jox ko tem bu am solo boobu nga xam ne bu ñu ko mayee nopp dana ci indi ay ay jàngat yoo xam ne bu ñu ko yóbbuloo incha allah. ku ci nekk dana xam lan moo ko war ci réew mii mu dëkk muy euh, euh, Sénégal gi nga xam ne amul lu dul moom waaye lan moo àq yi nga xam ne am na ko tamit bu ñoŋalee àq yi def ay warteefam bu boobaa réew mi jàmm dana ci am allah thème bi nag mi ngi ko war a traité ci tomb yi ñuy bëgg a wax dana indi ab jiital boo xam ne ak laytaay bu bu thème bi bu noppee ci loolu mu leeral yenn baat yi nga xam ne war a yell dégg ñi nga xam ne am na ci bu noppee nag mu leeral euh, am ma réew li ñu naan am ma réew mooy ko dëkk cim réew yan yan charte moom mooy tënk li ñuy wax euh, la citoyenneté yan sàkk moo yan charte moo ko tënk ak it bu noppee dana indi beneen tomb ci biir muy ak yan moo war ki dëkk ci réew mi waaye dina ko bu noppee mu indi yan warteef moo war ci ki dëkk ci réew mi bu noppee nag mu soog a tëj jotaay bi incha allah. waaye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 baax a baax di rafetlu li nga laytaay jataay bi di teg sew say loxo sunu nuyoo ma àgg ci mboolem ñi nga xam ne nii ñoom lañ seqal liggéey bi ni nga ko waxee nag tey ñu war waxtaan ci doomi am réew yan ak ak yan def ak yan warteef moo ko war ci diggam ak am réewam muy baat yoo xam ne nag baatub cité wala siti boo koy xool ci arab mooy tolloog almadina almadina ci arab mooy ab dëkk dëkk bu ñu nee Touba ab dëkk la Madina la wala Mbàkke wala Njaareem wala Mbuur wala yu mel noonu muy baat boo xam ne ni grec yàgg yi ñu xeetu grec yàgg te njëkk a xalaat ci mbirum nosiinu état ak nu ñu koy taxawale ñoom ñoo njëkk a jëfandikoo baat boobu ñoom dañoo gisoon ne li ñu tuddee réew ñun te mooy état ngir ñu mën koo saytu ni ñu ko war a mën a saytoo dëgg mënta ñàkk ñu wutal ko ab yamukaay ci yaatuwaay bi wutal ko ab yamukaay itam ci nit ña fay dëkk ñoom dañoo gisoon ne am na yaatuwaay bu réew di yaatu bari waaye nit ña fay dëkk bari bi ñuy bari kenn dootu ko mën a saytu moo taxoon ñu nekkoon nag il faut que ñu wutal ko lim ci yaatuwaay ak lu koy lim ci ay nit ña nga xam ne dëkk su defee ba gëstu ba gis ne li ñu tudd dëkk mooy madin wala boog cité mooy dëkk ñu ne kon ab dëkk daal war yenn na mu nekk am na ñooñu bokk moo tax bu doon ci ñoom dañuy gis ne Touba dinañ état Ndakaaru état la Thiès état dëkk mag bu nekk mu tuddee ko état ñoom noonu lañ ko déggee woon ñu ko daan tuddee état cité wala loolu la dépend ba tax seen dëkk ñu Athènes Athènes ay jamono état boppam la woon ak yeneen dëkk yi xam ne ne ci biir réewum Grèce nekkoon dëkk ñu di kon loolu mooy cosaanu baat cité wala cité bi ñu demee nag ba jamono ko yeneen gis yéen yu bees dugg ci état yu bees yu moderne yi taxaw yaatu lool jël mbooloo mu baree bari jël yaatuwaay bu baree bari lépp ñu bool di ko saytu day mel ne déggin wa soppiku na waaye nag am na baat yoo xam ne nii dafa jóge ci yooñee ñu yàgg ñooñe ba noppi di law ba léegi ci siinu biir état yi ñu yor muy état yi nga xam ne état ñu xam nii lu mel ni baat citoyen ci la bokk citoyenneté ci la bokk ak civisme yooyu ay baat la yoo xam ne nii mën nga koo xare ci baatu cité bu ko defee muy di ak si ba léegi muy baat yoo xam ne jege nañ waaye am nañ tuuti tuuti ci ay wuute bu ñu nee citoyen mooy képp koo xam ne ni rek doomi réew nga yaa ngi dëkk ci réew mi di doomi réew citoyen nag nit ki mën na ko am mën na koo nekk ci façon yu baree bari waaye bi ci ëpp solo mooy nga juddoo ca réew ma réew yu bare bari boo fa juddoo rek da ngay daal di citoyen da ngay nekk déewu réew ma ci ni koy wax ci sax day daal leer nañ dangay nekk doomu réew ma ca foofee bu dee citoyen nit nag moom ay àq la ak i yelleef ak i yoo xam ne nii sàtt mu nekk da koy kat da koy tënk ne képp koo xam ne nii doomu réew mi nga àq yi ak yelleef yi am nga ko waaye tam warteef yi dañ koy gàll ci saw loos lu mel ne ñu ne la boo dëkkee di doomu réew mi am nga sañ-sañ àq ak yelleef ci bu wootee jotee wala boog am nga warteef ci bu wootee jotee nga dem sànni saw kàtt loolu warteef la ci citoyen bi nekk ci citoyen yi nekk ci lay dugg am nga àq tam ci bu la neexee bëgg ngaa falu bu fekkee charte yi dajale ci yow bu la neex nga def sa nekk candidat ca la ñuy laaj nga laaj boo loolu sa àq la yow en tant que citoyen boo xam ne ngaa dëkk ci réew kon citoyen bi moom buñ ko déggee dañ àq ak yelleef ak warteef yoo xam ne ni dañ koy xam ñu ne lii képp ku dëkk ci réew mi di doomi am nga ko mu des nag baatut civisme wala boog bëgg sam réew wala boog cofeel gi nga ànd sa digg wala boog cër bi ngay jox réew mi moom li muy tekki mooy ni ngay wormaale ak weg gi ngay weg lépp loo xam ne ni may jëmmal état bi ak li ci aju weg gi nga koy weg weg gi ngay weg sàrt réew mi te mooy constitution bi loolu ci biir civisme lay dugg am na ñuy wax bàkk réew mi devise nga war koo jox cër boobu ba tey du ci lu mel ne hymne national buñ koy buñ koy yëkkati taxaw ngay taxaw doo yëngutu doo ànd ak ña koy wax loolu day dugg ci baatum civisme boobu ñuy waxtaanee. cër bi ngay jox drapeau réew mi nga xam ne doo ko salfaañe doo ko lakk doo ko doo ko tilimal doo ko def leen du koy xajamal loolu ba tey ci la bokk ak lu mel ne nga respecté souveraineté état bi maanaam nga xam ne état bi moo féete kaw ñëpp nga jox ko cër ko jox waaye itam warmaal alal ji nga xam ne réew moo ko moom te ñëpp bokk ko ak alal ji nga xam ne sa moroomi dëkkandoo ñoo ko moom ko warmaal ko loolu lépp dafay dugg ci baatu civisme bu ñu ñëwee ñett ngi yoo xam ne ni dafay koy xaare ca baat bu muy citoyen ak citoyenneté ak dañ koy dégg fu mel noonu ñett yooyu nag bu dajee ci kenn nit moom mooy la gën mooy kenn nit koo xam ne nii citoyen la doomi réew mi la àq ak yelleef yu doomi réew mi am am na ko wartee fi doomi réew mi gàlloo gàlloo na ko waaye itam bëgg ak cofeel ak wég ak yëg ak yëg ak weg gi mu war a weg réew mi jox na ko loolu bu dajee ci nit mooy kiñ bëgg ci doomi réew mi nga xam ne nii moo tax ñuy wax waaye nag léeg-léegi sabab day ñëw sabab day ñëw benn sabab yi ñu dem ba nit ñàkk benn ci yooyu mën naa dese yennee ba noppi ñàkk benn ci yooyu man ngaa gis koo xam ne doomi réew mi lay doon waaye ñu rikki ci moom génn ci moom nangu ci moom àq ak yelleef yi nga xam ne ni doomi réew mi am nañ ko comme moom ndax def na njuumte loo xam ne ni séq na ko yoon yoon ne ko bokk na ci lañ lay sanctionné mbugal mi ñu teg sa kaw mooy àq ak yelleef yi nga amoon dootoo ko am misaal tey mën ngaa gis koo xam ne ni doomi réew mi la amut sañ-sañu wate amut sañ-sañu falu mënut a pose candidat mënut nekk bu ñuy wattam dootu bokk ndax mën naa am lu mu def ñu mbugale ko lu mel noonu kon kooka doomi réew mi la waaye citoyenneté moom dañ koo rocc ci moom man ngaa gis koo xam ne nii doomi réew mi lay doon àq ak yelleef ak warte fii ñu jox doomi réew mi yëpp jox nañ ko ko waaye boo xoolee ba ci biir amul lenn lenn ci lii niru xeetu patriotisme maanaam leen xel lenn liy tegtale moom bëgg na réew mi wala fonk na réew mi wala jox na ci réew mi doo ko gis ci moom kooku ba tey day am kooku nga gis léeg-léeg mu jalgati sàrtum réew ak ko mën ci doon ak noo ko mën di jalgatee rek jàppal ne sa baatu suwisum yaa ngi ciy génn réew mi di lañ ko tëral tënk ko ci ni nii ak nii ak nii la war a doxe boo ko jalgatee jàppal ne kon sa civisme manqué la ko gis tam du du faale wala boog du sax ne réew mi daal moo yilif ñëpp moom jàpp ne yéew bu ne réew mi ñëpp moom mën na ne moom daa bokk ci ñi nga xam ne réew mi moo nga ko gis muy jalgati ak alal réew mi ñu dénk ko alal réew mi mu war saytu war koo jaar la ci yoon mu këppoo ko wala mu def ci mel noonu wala sax nga gis ko naqar am mooy muy wër di yàq alal yi ñi nga xam dañu koo liggéey ba dajale ko mu yàq seen alal yëpp dafay tegtal ñëw sa patriotisme wala boog sa civisme des na kon ñett yooyu nga gis noonu buñ dajee mooy li gën waaye nag léeg-léegi kenn ñàkk ci benn wala ñàkk ci ñaar dese ca ya ci des moo tax buñ nee civisme dëgg-dëgg te mooy patriotisme wala boog bëggee bëgg sam réew mi ngi tàmbale ci wormaal sàtt réew mi constitution réew mi nga xam ne ni moo tënk réew mi nga respecté ko lépp looy def itam nga sàmmonteeg la ca lañ ca bind yaxal ko ca boo ko gisee baax na boo ko gisu itam nga sàmmonteeg yëg-yëg wala boog esprit bi nga xam ne ni mooy animé constitution réew mi lépp looy def nga fexe ba dëppale ko ballu ko ci biir constitution bi su defee nag loolu su amee nag nga door waxtaan nag ni ñuy respecté alalu réew mi ni ñuy respecté ñu ci des ak ak ni ak yu mel noonu muy ñëw ci biir kon baat yi noonu lay demee buñ ko déggee noonu dana teel a leer suñu bopp bu ñu delloo ci gis na dañuy gis ne dafa am doomu aadama dafa am yoo xam suñu bon dafa koo mooñaale ay yëg-yëg ak mbir yoo xam ne nit buy judd daf koy indaale lu mel ne yëg-yëgu xiif yëg-yëgu lekk yëg-yëgu naan yëg-yëgu ñenn bànneex yi nit daf koy judduwaale suñu borom daf ñu ko mooñaale bokk na ci li ñuy yàlla mooñaale nag ñu koy judduwaale nag yëg-yëg bi ñuy am ci suñu digg barab ba nga xam fa lañ gënee àddina wala réew mi nga xam ne nii fa lañ ñuy askanoo moo tax mu indi wax ju siiw ñëw ñu naan bëgg sam réew ci gëm yàlla la bokk du mën naa bañ nekk xadis wala ba mën a xadis bu wér wér naag wéru loolu am nañu ko yittewoo waaye daal wax la joo xam donte du xadis bu wér waaye xel nangu na ko maanaam ni ñuy dundee itam mën na koo layal mooy ne bëgg sam réew bokk na ci ak gëm yàlla wala bokk na ci baax moo tax yëg-yëg boobu nga xam yàlla daf ñu ko mooñaale nag ñaari néewaa na nit ku simple rek koo xam dara laalu ko te amu maanaam nit bu fekkente ne jaarale wuñ ko yenn barab yi rek yëg-yëg boobu day dund ci moom kon képp koo gis rek mu dem ba civisme boobu mu ñàkk wala patriotisme boobu mu aroon am mu ñàkk ko mooy ñaare mooy ñi nga xam ne nii dañ leen a jaarale ci barab yoo xam ne nii dañoo raxas seenum xel ba mu set raxas seen yur ba mu set def ci yeneen xalaat yu bees yoo xam ne nii mooy tax duñu fonk seenum réew duñu bëgg seenum réew gënal réerum jàmbur mooy indi gënal séewum réew lu ñu am yóbbu feneen lu ñu xam yóbbu feneen mel ne daanaka askan woon ci réew ma ñes loolu nag koo gis mu ne ci moom rek xamal ne am na fuñ jaar ak moom ci wàllu jëf-jëf ak i pexe yoo xam ne nii xam nañ ni ñu koy defee te mooy fexe ba raxas sam xel dugal ci yeneen xalaat yoo xam ne ni noonu lay demee waaye bu dee nit ku simple rek koo xam ne nii moom dañ koo bàyyi na ko suñu borom bindee woon bëgg sa fa nga juddoo bëgg sam réew moom suñu borom daf ñu ko mooñaale te buñ delloo ci kilifa yu mag yi ñuy tegtaloo dañuy gis ni ñu bëggee woon seen barab yooyu boo ñëwee ci ku mel ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku nekk xam na ne màkk fa la gën àdduna fa lañ koy askanal tam waaye suuf su nag suuf su mu bëggoon la ba daan ko wax léeg sox sax daan jàkkaarloog moom naa ko yow de yaa ngi nii suuf si ma gën a bëgg ci àdduna mooy Makka su fekkoon ne samay noonu génnewuñu ma fi du ma fi génn mukk kon yëg-yëg boobu moom mi ngi woon ci moom wala boog ni mu ko waxee ci ay waxinam bu ñëwee ci li ñu gën a jege muy Serigne Touba radiyallahu anhu ku fonkoon fi mu ganee at fim fi mu feeñe fonkoon na ko lool Touba gi nga xam bu doon réew dañaan mooy aw réewam fonkoon na ko lool daan ci wane cofeel gu mat sëkk daan na bind di wax ne mbàkke bool day man bëgg naa ko lool ndax falaa feeñe feeñ gi mu fi feeñe tax na mu fonk mbàkke bool bëgg ko lool boo ñëwee ci Tuubaa gi nga xam ne bu doon réew dañ naan mooy am réewam moom ci bindam yu baree ba dangay gis muy bind di wax yëg-yëg boo am ci Tuubaa leneen lu dul moom rek boo leen lëkkalee loola day yomb lool day woyof lool ci nit ki joxe ko te mën a sàmm bëgg-bëggum réewam kon muy ñetti baat yu jege lool baatu civisme baatu euh, citoyen baatu citoyenneté xaw nañoo gi doonte tuuti am nañ tuuti ay ay wuti ci biir kon wax nañu citoyenneté nag moom ay mooy àq la ak mën nañoo nangu ci moom citoyenneté am ak xam ak yelleefam ñu nangu ko ci moom te mën naa am ki ko nangu ci moom moom bu doon wàllu bëgg réew mi donc ki ñu ko nangoo ci moom moo ko gën a bëgg fuuf réew mi ko moom moo ko gën a bëgg fuuf ci fànn yu baree bare loolu dañ koy seetlu ci ñi te ay prisonniers d'opinion maanaam ñi nga xam dañu leen a tëj ngir gis-gis bu ñu am ci seenum réew fonkoon ko lool ñooñu tëj nañ leen nangu ci ñoom seen citoyenneté xañ leen ko te mën naa am ku leen tëj nangu ko ci ñoom ñoom ni ñu bëggee seen réew fonkee noonu moom sax genn wàll ko sax newut ci moom kon xëy na yeneen lay jëfandikoo ñooñu nag ñu bari lañ koo dégg ñu tëj ko ci xalaat xalaat yu am ci yëm réewam wax xalaatam ci réewam ñu tëj ko ci jàppal ne mën nga koo dugal ci ñooñu waaye bu ñu doon xool ki ci gën a siiw wala bokk bokk na ci ki gën a siiw ku mel ne Nelson Mandela Nelson Mandela ñaar fukki at ak juróom-ñaar lañ ko tëj kaso ànd ak travaux forcés maanaam mooy liggéey boo xam du ko sañ a bañ di ko toj looy xeer ak di koy liggéey lu liggéey yu méttee métti diirub ñaar fukki at ak juróom-ñaar lu tax ñu tëj ko weesu ne bëggoon na am réewam bëgg a goreel am réewam yëg-yëg boobu dong moo tax ñu tëj ko te biñ ko tëjee ma ne ci biir kaso bi daana bind di wax ne ñim séqal réew mi di leen wax ne nii ngeen bëggee dund man mii noonu laa bëggee dund kon ni ngeen bëggee dund man mii noonu laa bëgg a dundee waaye nag damaa mënta jaay sama àq ñoñ ci am sañ-sañ bu ñu war a am seen bopp ak seen liberté ak seen àq ak seen war koo jot mënuma koo jaay di ko jënde sama dund waaye ni ngeen bëgg dundee moom laa bëgg mu ne leen nag su fekkente ne nag àq ak yelleef sama askan war a am sañ-sañ boobu ñu leen war a jox su fekkente ne laaj na ma joxe sama bakkan mën naa ko joxe saa yi ko laaj naa ko joxe kon kooku foofu la ne woon képp koo xam nag bunduxataan nañ la ndax ne danga am gis-gis boo am ci sam réew muy bëgg ko ak fonk koo fonk ba tax nga di ko feeñal mën nañ laa dugal ci biir ñi nga xam ne nii dañ leen a defal li ñuy wax délit d'opinion te mooy tëj leen ngir seen gis-gis ak seen xalaat loolu nag lu bari ci àddina bi foo dem ci bi da nga fay fekk kon yooyu mooy euh, liñ ci bëggoon leeral ci wàllu baat yooyu nga xam ne nii day lor lu baree bari kon citoyenneté nag bi nga xam moom citoyen bi nekk moom lañ soxlawoo ci moom ni dégg ni mi ñu ci am léeg-léeg dafay wuute ci diggante réew ak réew wuute gi mën naa dellu ci seen mbatit seen culture seen aada seen cosaan mën naa dellu seen démb te mooy seen histoire wala boog idéologie bi nga xam ne nii mooy saytu réew ma yooyu ni ñuy wuutee itam baatub citoyenneté ni ñu koy déggee ak acte yi ñu koy jox mën naa wuutee noonu ci misaal tey ñi ma tuddoon ci départ bi te mooy grec yi nga xam ne nii ñoom wàllu état bokk na ñi ko njëkk a xalaat njëkk koo nos ñoom seen réew dañoo waxoon ne droit citoyenneté ki ko fa am kese mooy góor ñi góor ñi dong ñoo am àq ci bokk ci doxalinu réew mi te du góor ñëpp sax waaye góor ñi nga xam duñu ay jaam te booba jamono yooyu jaam dafa amoon nga gis ne kon ñoom seen citoyen ki ñuy jox citoyen dëgg-dëgg góor lay doon te gor lay doon kon mën ngaa nekk dëkk ci réew mi citoyen ci réew mi boo dee jigéen amoo droit de citoyen doo ko am boo dee jaam bokkoo ci kon yooyu mën naa wuute ci diggante réew ak moroom ja ci ni kem ni aada yi ak cosaan ni muy wuute mën naa wuute noonu waaye bu ñu xoolee ci ëpp ci nit ñi ci àdduna bi ku nekk am nga foo nekk doomi réew ku nekk ñun fi nekk am nga réew moo xam fa nga dëkk ñu la fay askanal donte am na benn yu néew nag yu nekk ci ay réew ba noppi amuñu nationalité nga xam moom kenn amoon dugg amuñu benn nationalité maanaam dañu askanal ci benn réew am na benn benn réew yu ko am waaye bëriwuñu loolu waaye lépp ci doomu yi moom am na fu ñu leen tudde seen doomi réew fu ñu nekk ay citoyen nekk fa doomi réew ci réew moomee kon nag boo nekkee doomu réew ci réew ñu jox la sa àq sa yelleef yi nga am loolu daf lay jox ay avantages yu baree bari yoo xam ne daf la koy sàmmal te mooy ci biir nangul gi ñu lay nangul ne doomu réew mi nga ci lañuy sukkandiku ba lépp luy sa njariñ say intérêt ñu sàmmal la ko boole ko jox la yeneen àq ak yelleef yoo xam ne nii danañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye itam noonu lay joxe àq yelleef nag ci lañuy ñuy gàll ci saw loos ay wërtéef ak obligation yoo xam ne nii dangaa war a wàccoog moom warteef yooyu ak àq yooyu itam nag day wuute ni ma ko waxoon léegi ci eh, jóge am réew ak moroom ja mën nañ cee wuute kon daal bu ñu nee citoyen mooy képp koo xam ne ni jëpp jëmm joo xam ne nii yaa ngi dëkk ci gox cim réew di jariñu ca la dëkk ña doomi réew ma njariñ ak ak yi leen jox ñu jox la ko nga di ko jariñoom droit sociaux ya fa am droit politique ya fa am yépp ñu bàyyi la nga di ko jariñoo mën nañu jàpp ne boobaa dañ naan doomi réew moomee moom lañ lay tuddee wala boog citoyen nga ca réew moomee ñuy waxtaanee am na benn xalaatkat bu mag bu bokk ci grec yi moom waxoon na ko nee na woon citoyen daal mooy képp koo xam ne nii man nga am nga te man nga muy ñaari baat am solo man nga te am nga mooy man nga bokk ci ni réew mi doxe waaye tam am nga sañ-sañu bokk ci ni réew mi doxe bu ñuy wax nga wax bu ñuy propose nga propose bu ñuy bu ñuy bu ñuy discuter nga bokk ci ñuy discuter nañuy atte réew ma nga am ca kàddu la ñuy jokkalante ca biir réew ma nga am ca kàddu ak noo mën a defee ci doola ba dañu jàpp ne kon yow citoyen nga ca biir réew moomee loolu nag kon yaa ngi ko mën a amee ci nga am na nationalité réew mi réew ma nekk dafa kii lay maanaam sart maanaam lu ñu ak maanaam lu ñu lay bindal loo xam ne nii mooy wane ne yow mii doomi réew mi nga war ngaa mën a bénéficier wu ci avantage yi nga xam doomi réew mi dana ko ci yooyu itam nag nit mën na ko am façon yu baree bare danay wuute kem ni réew yu wuutee am na réew yoo xam ne nii boo fa juddoo rek nekk nga citoyen bu fekkee li ñuy wax droit au sol maanaam maanaam suuf ma àq ji suuf si àq ji mu lay jox boo fa juddoo rek dañ lay daal di jàppee doomi réew mi léeg-léeg itam nga man koo amee ci sa baay nekk doomi réew ma wala sa yaay nekk doomi réew ma mën na laa wàll nga nekk doomi réew ma mën na la koo may itam nga nekk takk ca waa réew ma wala nga sëyi ca waar réew ma bu fekkee da ngaa nekk ci réew am fa soxna soxna su mën na laa may ci yenn réew yi mën na laa may nga am àq ci nekk citoyen réew ma naka noonu tam safaan bi danay am wala sax nga jël fa nationalité jóge fa ñëw fa jël nationalité kem ni ko luwaaye di tërale waaye daal comme ci mën ni doon daal bala ñu laa mën a tuddee citoyen dëgg dëgg mooy da ngay àq ak sañ-sañ ci bokk ci lay doxal réew ma jaare ko nag ci institution yi nga xam ne nii mooy ŋànk réew mi moo xam yu politique la moo xam yu yoonal la wàllu atte bi la moo xam yu constitutionnel la yi nga xam yu daal mooy tënk réew mi leneen nga dem ci réew nag fekk fa ñoo xam ne nii ci réew ma lañ dëkk man naa am sax fa suñ fa yéenetee jóge duñ fa jógee mu ko wala bokk fa la ñuy sax lay tënk waa réew ma tam muy ndigal yi doxal réew ma tam ca la ñuy tënku di ca dox waaye nag duñ am benn sañ-sañ dugal seen kàddu ca nañuy dogale ak nañuy tërale yoon yooye kon ñoom yoon ñuy tëral dañ cay tënku waaye nag àq ci bokk ci ña ñuy tërale yoon wooye ñooñu ñu lañu te étranger ci am réew mooy nit doomi jàmbur yoo xam dañoo ne cim réew mën nañoo bànneexu ci yu baree bari ak ak yelleef yi am waaye nag du ñu am sañ-sañu dugal seen kàddu wala seen xalaat ci ne réew may doxee ndax bokkuñ ci doomi réew ma kon ñoom amuñu sañ-sañ bokk ci doxalin politique ba wala nañ koy nañ koy orienté wala mel noonu yëg-yëg bi nit di am nag ci ne moom doomi réew mi cosaanu ci réew mi la moo yëg-yëg bi koy may mu yëg ne lépp luy ak ak yelleef ak warteef yu doomi réew ma am jox nañ ko mooy tax mu gis ne moom nekkul ni rek daa dëkk ci sa réew mi nekk fa noonu rek waaye di ñu imposer ko système boo xam ne nii moom bokkul ci ña koy doxal bokkul ci ña koy dogal bokkul ci ña koy organiser boobaa loolu nit ki yëg-yëg bi muy am ndax man may nañ ma ni ma nekk doomi réew mi ndax may nañ ma ko man ma mën a dugale sama loxo ak samay xalaat ak samay kàddu ak samay gis-gis ma mën koo dugale noonu ci doxalin réew mi su fekkee da nekk doomu réew ci réew te yow nga yëg ne man mi kat maa ngi bokk nekk doomu réew mi waaye mayuñ ma ba mën a dugal samay xalaat samay gis-gis ci réew mi boobaa yow gis-gis bi nga am sa bopp dana ci feeñ waaye itam ni ngay xoole réew mi daf cay feeñ ni ngay xoole neen ñi nga bokkal réew mi itam taxawaay boobu ñu am ci yow daf lay feeñ moo tax boole gi ñu lay boole ci ni doxalee réew mi loolu mooy la may yëg yëgu nga yëg ne man mii kat ci réew mi ci laa bokk te it ab citoyen la wala boog doomi réew mi la comme ñëpp moo lay may nga am ñu yemale la nga xam ne dinaa léegi doomi réew mi ñëpp ñoo yem ci kanam état ñoo yem ci kanam loi ñoo yem ci kanam yoon ku nekk ci ñun àq ak yelleef yi nga am moom na sa moroom am ku nekk ci ñun warteef yi ñu gàll sow moom lañ gàll sa loosu morom kon ñu ne askano gi ñu askano suuf si boole gi lay boole ci liy doxal réew mi yemale gi lay yemale ak doomi réew mi loolu mooy tax yëg ne yow doomi réew mi nga wala bokk citoyen nga ci réew mi nga bokk nekk mu am nag ay charte ak ay yu koy dëgëral yoo xam ne nii foo xoolee gisoo ko jërul nga fee jéem a waxtaane citoyenneté mooy citoyenneté bu mu nekk wala boog doomi réew mi ngir mu ñu mën koo tuddee ak ak yelleef yi mën ko am dafa am ay charte yoo xam moo war a daje ñu door a waxtaane lu mel noonu bi ci njëkk mooy li ñuy wax état de état de droit mépp réew moo xam ne ne état de droit amu fa jërul nga jéem a waxtaane citoyenneté état de droit nag mooy bu ñu ko waxee mooy état boo xam mat na lim doon sëkk mat na lim doon sëkk maanaam mooy moom féete na kaw ñëpp te it yemale na ñëpp ci kanamam moo féete kow ñëpp waaye tam ñëpp a yem ci kanamam doomi réew mépp ñoo yem ci kanamam loolu sart la ci ñu mën waxtaane citoyenneté réew mu ko amul ala boog fu mu nekkul réew mu nekkul boo fay waxtaane citoyenneté du du tegu ci nañ ko war a tëj moo tax réew yi nga xam réew dictateur la dictature la ñuy dund ay dictateur ñoo koy atte wala boog nit ñoo xam seen xalaat dong lañ jàpp ne moo war a dox keneen wërta xalaat foofa citoyenneté du fa màgg na fa war a màggee dëgg dëgg dëgg du ko fa màgg am na réew yoo xam boo fa demoon tey mbooloo mu baree bari ña nga ci réew ma te xañ nañ leen ñu mën a bokk ci li doxal réew mi ak ni ñu ko mën a tudde nag wala nga dem ci réew moo xam ne nii minorité bu ndaw lim bu tuur ci ay nit ñoom ñoo ŋànk réew mi lépp lu fay dox ñoo koy doxal alal réew mi lépp seen loxo la nekk ñu koy jëfandikoo nu mu leen neex ku leen neexul du ca bokk loola foo ko gisee xam ne état droit néew fa foofa nag boo amul nag citoyenneté du fa man a am moo tax su fekkente ni dañoo xañ lépp ci doomi réew mi ñu xañ leen ñu bokk ci ni ñuy doxale réew mi xañ leen ñu jot seen wàll ci alal réew mi yëpp ñëpp bokk ñu xañ leen ko ñu mën caa jot loola buñ ko defee day am lu muy jur ci biir nit ñi la muy njëkk a jur ci biir nit ñi mooy ñañ naan doomi réew mi lañ dañuy dem ba gis ne comme kat réew mi ni la tëddee man tam kon warteef yi ñu gàll sama loos ak obligation yi ñu gàll sama loos man tam su ma neexee naa ko bañ a respecté ndax comme réew mi joxuñ ma sama akk joxuñ sama yelleef kon man itam samay wartéef mën naa bañ a tee wàccoog moom loolu dañ koy gis ci réew yu bare bari ñaari boo gisee réew gis ñuy génn def ay marche di dox ci mbedd mi di wane seen naqar loolu dana ko waral mooy gis nañ ne ñoom seen ak ak seen yelleef dañeen koo xam ci réew mi léeg-léeg feeñal ko ci ay grève grève yi ñuy def banque seen loxo bañatee liggéey léeg-léeg ñu feeñal ko ci wut ay ndiiraan ay fuul yoo xam dañuy génn topp mbedd mi dox lu ñu romb yàq ak ku ko man di moom bu ñu ko rombee dañ ko yàq ndax am nañ yëg-yëg bu ñuy bëgg a feeñal foofee buñ ko buñ ca waxul nag mën naa dem ba dem ba àgg ci ñu wax isyaanul madani yi mooy désobéissance civile mooy ñu dem a dem ba luwaay yeeg sàtt yi tënk réew mi kenn dóor ci nangu kenn dóor ci tënku bu ko def ku nekk def la la neex boobaa nag ci la réew ma faray jaare far faagaagalu kon yëg-yëg bi nit ñi am ne ñoom état bii leen yilif état bu mat lim doon la te mooy état de droit la mooy ci yoon lay tënku ku nekk lay sàq dañ la ko sàmmal lay say lef dañ la ko sàmmal lay sa la ko gàll te ñëpp la yemale ci kanamam boobaa bu amee mën nañu waxtaan si waaye nag bu loola manqué moom nit ñi dootuñu gëm ne ñoom ay citoyen lañ wala bokk dootuñu gëm ne seen citoyenneté ña ngi koy dund beneen tànk bi ci topp te mën di ñàkk te mooy li ñuy wax système démocratique maanaam doxalin wu démocratique mën di ñàkk cim réew li ñuy wax démocratie ak citoyenneté ñoom ñaar dañoo lënkaloo ndax démocratie mooy yiir mooy aas mooy aar principe bu citoyenneté démocratie nag bu ñu ko waxee moom tam ay déggin yu baree bari la am bari na nu ñu koy jëfandikoo itam ci xeet yu buti waaye li ñuy wuute wuute nag am na ponk yoo xam dëppoo nañ ci dëppoo nañ ci ne démocratie bu mu mënti doon li ñuy wax décentraliser la ñuy def mooy nguur gi wala bokk doxalin réew mi ñëpp ci seen loxo da ciy dugg di mana mana maanaam dogal yi ñu jël dañuy fexe ba ñëpp bokk ci dañ koy décentraliser mooy ñëpp ku nekk da gis sa bopp ci dox yu ne ak décision ak dogal yi nga xam ne nii moom la jël loolu moom démocratie bu mënti doon dana ko sàmmanteeg moom démocratie bu mënti doon it dana gëm ne doole ji muy yor wala boog légitimité bi muy am ku ko am ku nekk population bi moo la koy jox kon nit ñi ñoo population bi ñoo féete kaw ku mënti doon kon ku fi yor dara ñu dénk la ko lay tax ñu mën koo yoonal mooy ñu an maanaam doomi réew ma ànd ci ak yow loolu démocratie yëpp dëppoo nañ ci loolu mënta ñàkk démocratie yëpp dañ dem dañ dëppoo li ñuy wuute wut dañ dëppoo ci ne nit ñëpp ci kanam loi ñoo yam nit ñëpp dem àq ci wàllum politique yi ñu am ñoo koy yem kon duñ la xool ba xam yow jën diine nga gëm du waru caa feeñ yan aada cosaan nga yore waru caa feeñ ban doctrine wala ban idéologie ngay dund waru caa feeñ wala bokk sax ban xeet nga bokk wala ban làkk ngay làkk waru caa feeñ loolu nag bu amee cim réew si doxalin woo bu amee cim réew mën na noo waxtaane citoyenneté ndax boobaa ñëpp dañuy gëm ne mën nañoo wuute ci ay diine wuute ci ay làkk wuute ci ay aada ak cosaan waaye lii ñu bokk muy réew mi ñoo ciy bokk yam ñun ñëpp te ñun ñëpp ku nekk sa àq da ciy gis sa bokk dana taxit nit ki ñu ci démocratie bu mu nekk dana may nit ki mu mën a am xam-xam bi mu war a am doxalin réew mi ba mën cee am yëg-yëg bu leer ak gisin wu leer ca muy doxe mooy lépp loo xam ne nii yitteel na réew mi ñëpp bokk ko lañ ca war a xam ñu war koo tasaare ñu tasaare ko ñëpp xam ko bu ko defee ku nekk xam fa nga koy teg sa tànk loolu ñu wax transparence ci doxalinu am réew loolu bokk na ci li démocratie di woote te mooy ñëpp xam ne lii ak lii ak lii am na lii ak lii ak lii am na bu ko defee nag xam googu nit koy xam li nekk ci biir réew mi mooy tax mu mën a assumer ay responsabilités ci na muy àtte woo ca biir réew ma waaye itam na muy dugale loo xam ca biir réew ma waaye itam na muy laaje ña nga xam ñoom lañ dénk te bu leeral jotee ñu war a leeral ñu war leen am am sañ-sañ ñu laaj leen ñëw leeral ñu leen dénkoon ñoom naka lañ ca doxale loolu mënta ñàkk pour ñu mën a waxtaane citoyenneté ci am réew beneen tànk bi mënta ñàkk te mooy li ñuy wax mentalité citoyen yi maanaam xel seen xel fi mu toll maanaam am na niveau maanaam niveau booy bi muy laaj pour ñu mën laa wax ne yow sit am nga citoyenneté dëgg-dëgg dafa laaj nga am niveau sa maanaam sa capacité intellectuelle war naa àgg fenn wala boog sa mentalité war naa àgg fenn fi moo tax réew yu baree bari mentalité nit ñooñu dañ koy defar di ko jaare ci li ñuy wax socialisation te mooy génne nit ki ci mbaay ma dugal ko ci nite jaare ko ci mbatiitu réew mooy aada cosaan réew mi ñu xamal leen ko jaare ko tam ci doxalin réew mi di leer seen bopp ñu jaare ko nag ci maanaam institution sociale yi nga xam ne ni moo am ci réew mi lépp nag état bi di ko saytul boppam di ko nattal boppam loolu ñuy def ci nit ñi mooy mooy yar bi rek mooy njàng meeg njàngale meeg tarbiya bi éducation foofu lañ koy jaarale ba defar maanaam eh, nit ñi seen wàllu yëg-yëgu xel ñu mën koo defar bañ am yëg-yëg bi nga xam ne nii bu ñu leen joxee seen citoyenneté danañ ko mën a jëfandikoo su fekkente ne nag nit ki nag dañ koo jox ay droit ak yelleefam yi tax mu nekk citoyen ba noppi moom xelam ak ci ñor gu mën na mën a jëfandikoo ak ak yelleef yooyu mooy warale leen nga gis ñu jox ko nit mu koy jëfandikoo ci façon bu négatif boo xam ne ni waru ko woona a jëfe noonu ñu jox ci misaal ñu ne la tey sañ-sañ wax sa xalaat loolu àq la joo xam ne nii maanaam sart réew mu nekk da koy garanteel doomi réew mi ku nekk am nga sañ-sañu am xalaat wax ko waaye su fekkente ne nit ñi seen seen mentalité agul fenn bi danga gis àq jooju dañ koy jëfandikoo ci façon bu baaxul mooy li dal réew yu baree bare ku la neex daggal saaga ku la neex xas ku la neex tuumaal ku la neex wax lu la neex bu ñu waxee nga ne am naa sañ si wax sama xalaat loolu tegtal la ci ne yow jox nañu àq jeeg waaye sa niw xel fi nga toll ci wàllu xel ak xalaat moo la mayul nga mën koo jëfandikoo ci yoon wa kon fexe ba defar xelum nit ñi ba mu tolloog li ñuy wax citoyen dëgg-dëgg dana tax mu dimbali ñu moo tax li ñu wax socialisation boobu léegi su fekkee defar nañ ba matti nit ki moo tax nit ki dana xam mbooloo mi mbokk moom mooy réew mu bokk ñoom fan lañ bëgg a dem lan moo leen boole da koy xam lan mooy seen ndono da koy xam lan mooy njariñul réew mi da koy xam ba du ko yàq lan intérêt réew mi ci lan la nekk moom da koy xam ba di ko défendre di ko yàq du ko yàq am na réew yoo xam boo demoon tey ñëpp mànkoo nañ ci bu lépp looy def ba laal njariñul réew mi moom waar yi mopp an ñëw ñëwul dootu ko dal sa kaw ndax dañoo gëm ne laal nga loo xam mooy njariñul réew mi loolu nag dañ koy def ci nit waaye itam dañuy def ci moom mën a fexe ba dund ak mbooloo mi te du seey ci biir mbooloo mi mooy ne man ci doomi réew mi ci laa bokk waaye nag du ma seey ci biir doomi réew mooy danaa am sama gis-gis am sama xalaat su wax ko jotee ma ko waaye dinaa ko wax ci façon boo xam ne nii yoon dana ma ko may kon boobu mënta ñàkk moom tam kon sart yooyu mënta ñàkk état de droit mënta ñàkk système démocratique mënta ñàkk waaye itam nit ñi dafa seeni xel bañ am yëg-yëg bu mënta ñàkk pour ñu mën a waxtaane citoyenneté ci am réew bi ci mënta ñàkk itam mooy soxla yi nga xam ne nii nit ñi dañ koy am état ba di taxaw ci fajal nit ñi soxla yooyu moo tax am na ay soxla yu yu fondamental yoo xam ne yëg-yëg yoo xam ne daf koy soxla balaa ñu mën a cim réew réew ma état ba day taxaw temm ci fajal nit ñi seen soxla yooyu nga xam ne nii moom la war soxla yi mën naa limu nag mën naa bari loolu am na ci yoo xam ne nii ay ay ay ay ay soxla biologique la maanaam lekk ak naan ak yu mel noonu soxla ci sécurité soxla bi nga am ci confort soxla bi nga am ci sa jëmmi bopp. yooyu yëpp réew mi def cee war a taxaw moo tax am na benn borom xam-xam boo xam ne ni dakoo tënkoon def ko la ñuy wax form pyramide dañu tuddee ko pyramide Maslow maanaam daf na léegi nii soxla yi nii la demee ci suuf ci misaal ñu ne lekk ak naa nag yu mel noonu mooy ne ci suuf mooy soxla yi njëkk sécurité topp ci maanaam confort topp ci yeneen topp noonu la koy toppee ba ci njobaxtan la nga gis fa nit ki yëg moom ñu jox ko cëram en tant que doomu aadama soxla yooyu noonu mu toftaloon nag soxla boo faj ba mu fajtalu beneen dafay judd fi mu nekk nii nit ñi am na fa bu ñu fa tolloo lekk ak naan dong lañ soxla lañ tal leneen loo leen lijjanti lu lekk ak naan yëguñ ko waaye fi ni bis boo demee ba rek la lekk geeg naan gi ba mu lépp jag da nga daal gis ñu commencé waxtaani mbirum sécurité war nañu am sécurité war nañu am kaaraangeen nañu sàmm ak yu mel noonu loolu bu lijjanti ko gis ñu jàll kon looy soxla boo faj beneen soxla day ñëw di taxaw bañ àgg ca ñob la kon nag balaa ñoo mën waxtaani citoyenneté ci réew nag day fekk réew ma taxaw temm ci soxla yooyu doomi réew mi am mu koy fajtat ndax su fekkente ne fajtalu ko maanaam day mel ne citoyenneté bu doon dara dañaan day datu datu maanaam day lekku day lekku ba ba jeex buy lekku ba jeex nag yaa ngi koy gisee ci nit ñi dañuy dem ba rocc ko maanaam nit ñi doomi réew mi dañuy dem ba rocc ci warteef yi ñu gàllan seen loos ñu rocc ko ci dootuñu ko nangoo def ci misaal tey su fekkee da ngaa ne ci réew te nga gis ne réew mi yow yi ngay soxlawoo moom daanaka yitteelu ko taxawu ci jéemu cee fajtal lenn nit ki mën naa dem ba ne kon de sama warteef fii ma waroon te mooy impôt bi ma waroon a fay ci alal ji ma yàlla jox moo war cee fay te ñun ñëpp mu war ñu koo fay da ñu commencé ne man daal comme réew mi yi defaluñu ma dara man tam impôt bi dootu ma ko fay ñu ba da ngay gis naan gars yi xaalis boo ko dajal ko dañ ñu bari tax ñu baree bari daw dootuñu nangoo fay impôt nin ko war a fay loolu la koy waral mooy dañoo gis ne taxaw gi leen réew ma waroon taxaw taxawu leen man nañ ko feeñal tam ci ñàkk bokk ci lay doxal réew ma ñu génne seen loxo ci misaal tey bu élection amoon tey warteef la ci citoyen bu man doon doomu réew bu ku nekk bu fekkente ne ak nga fi nga war a wotee warteef la ci yow nga jël sa carte électeur dem wote ji loolu warteef la ku ko defu tam defoo sa warteef bàyyi nga benn see warteef en tant que citoyen waaye léeg-léeg gis nit ñi am na foo xam bu fa état bi tolloo ñu yëg ni ñu état bi daanaka defalu leen lu am solo élection day jot kenn du dem taux de participation bu faible ngay gis am na réew mu ñu jege lool moo xam ci Afrique gi la bokk ñaari weer ci gannaaw def nañu élection yoo xam ne nii taux de participation 11 pour cent la maanaam téeméer yoo jël fukk ak benn dong ñoo ci dem wote ndax ñoom dañoo toog ba yëg ni gars yi fi nekk daal di doxal réew mi daal wax dëgg yàlla ñoom seen bopp lañ fi nit ñuy déplacé wu naan ñoo ngi wote yu mel noonu kon ñàkk a satisfaire bëgg-bëgg nit ñi soxla nit ñi dana jur yu mel noonu mën naa dem sax ba nit ki dem wuti feneen nag génn réew ma bàyyee la ko dem wuti beneen dem dëkk ci beneen réew wala sax mu nekk ci biir réew mi féttéeru wala boog fépp ci kaw réew mi dootu nangoo tënku ci sart réew mi mën naa ci biirum réew bu fekkente ne ñun dañoo dem ba gis ne dañoo ci réew mi mën nañoo dem ba créé ay groupe yu ndaw ndawaan ci biir réew mi ngir mën a laaj suñu àq ak suñu yelleef loolu boo demee yenn barab yi nga xam dañu naan ay jihadiste dafa nekk yu mel noonu bokk nañu di ko indi lu mel noonu mooy ay nit ñoo xam dañoo gëm ne ñoom dañu leen a marginalisé ci réew mi joxuñ leen seen cër joxuñ seen ak seen ñu dem ba yàgg ñu créé ay groupe yu ndondawaan ci biir fas yéene jàmmarloo ak état bi nga xam mooy état principal bi fi nekk loolu lépp lu koy waral mooy maanaam ñàkk a toppatoo bëgg-bëgg nit ñi kon bëgg-bëgg nit ñi réew bu nekk da nga war a taxaw ba nit ñi mën a dund seen citoyenneté nañ ko war a dund am lu am solo nag loo xam ne dañuy feeñ foofu léeg-léeg foofu nit ñi dañuy juum maanaam ñi ngànkum réew mën nañoo juum ci yan soxla nit soxla woo fi ne soxla yi ni ma ko waxoon léegi day yéeg nit ñi dañuy weesu yenn soxla yi yow nag boo mënta natt soxla yi nit ñi mën naa am foo jàpp ne fa la nit ñi toll nga nekk ci di ci sonn jàpp ne mooy soxla nit ñi fekk ñi weesu nañ ko bu yàgg mën ngaa jàpp nit ñi seen soxla mooy lekk ak naan nga topp ca di wàññee ko yokk ko subventionné ko def mel noonu jàpp ne boo ko réglé mbir mi da fekk ne nit ñoom weesu nañ lekk ak naan donte mataluñ ko sax waaye ñoom seen soxla wees na lekk ak naan nag léegi weesu nañ dañ ko dépassé bu yàgg-yàgg bu ko defee boo ci nekkee di ci sonn da ngay sonn sa coono du la jural dara réew wala bokk dafa am réew yu bari dañuy àgg ci nit ñi waxatuñu ay lekk ak naan ak sécurité yu mel noonu waaye la ñuy waxtaanee mooy ñoom ñu jox leen seen cër en tant que ay doomu ci biir réew mi mooy ñu ubbil leen bunt ñuy mën a wax seen kàddu ci biir doxal réew mi ñuy mën a dugal seen xalaat ci doxal réew mi kuñ jënk réew mi te nga def ay lajj-lajj yi ñu mën a jàmmal ak yoneel def nga lajj-lajj te dara du leen ci fekk nit ñi foofu lañ toll waaye soxla yu bare bari ñu jàpp ne fi ne ci lañ toll foofu nit ñi weesu nañ ko ba yàgg-yàgg bu ko defee léegi yow nekk nag ca di ko jéem a fekk na nit ñi weesu nañ ko kon fi mu ne boo doon xool yittee nit ñi yu baree bari ci àddina bi réew yu baree bari boo fa demoon nit ñi la ñuy kaas mooy dañ ñoo xañ suñu àq ak suñu yelleef ñu wax suñu xalaat ci réew mi loolu rek moo indi jaxasoo ci réew yu baree bari te fekk ne sax man naa am ña yor réew mi ña ngay sonn ci yeneen domaine jàpp ne mooy soxla nit ñi bu ñu ko fattalee yëf yi dana fattal kon yooyu ñeent mbirée ngi yoo xam ne nii pour ñu mën waxtaane citoyen ni di cim réew il faut que mu feeñ ci mooy état de droit mënta ñàkk mënta ñàkk itam démocratie am fa di fa dox mën ta ñàkk itam maanaam nit ñi seen xel ñu defar ko ba mu nekk ci ñu am mentalité yu baax waaye itam soxlay doomi réew ma nag ñu cay taxaw yooyu bu dajaloo nag buñ ca taxawee boobaa nag dañ mën a waxtaan ak ak yelleef yu ab doomi réew di am ci réew loolu mooy indi ñuy wax xool nag yan ak ak yan yelleef moo war doomi réew mu mënti doon suñuy waxtaanee citoyenneté système ay système maanaam système mu ay droit la ak i ak i yoo xam ne nii dañ koo xam yooyu nag bu fekkente ne nit ki àq ak yelleef yi nga am yow en tant que doomi réew mi loolu mooy warteef bi war état mu dox ca àq ak yelleef yi nga xam ne réew da koo am ci doomi réewam loolu mooy warteef bi war citoyen bi mu koy dox day mel ne dañ koy weccee maanaam kon li ñuy tuddee ay àq ak yelleef ci nit mooy warteefu état li ñuy tuddee àq ak yelleefu état mooy warteefu nit ki doomi réew mi moo tax àq yi réew mi am suñu ñun mooy warteef yi ñu am ci mooy suñuy warteef ñun àq yi ñu am état bi mooy warteefu état kon ku nekk ameel nga sa morom àq ak yelleef ku nekk amel nga sa morom ay warteef bu dee warteef àq yi nga xam ne ni réew mu nekk am nga ko ci say citoyen say doomi réew am na yuñ ci ñu doon léegi mooy ñu jox la cër réew mu nekk dangaa ngaa am warteef la sa doomi réew ma ñu jox la cër bi ñu la war a jox te mooy ñu ñëpp dañoo war a gëm ne amul genn kàttan gu féete kaw kàttanu réew mi wala boog amul kenn ku féete kaw réew mi ci wàllu daraja souveraineté bi ëpp sol absolu bi nga xam moo féete kaw lépp mooy souveraineté étatique mooy état moo ko am kon moom moo féete kaw ñëpp moo yilif ñëpp itam nag mbooloo mu mënti doon tam nag da ngay duggaat ci biir mbooloo mi nga xam ne nii réew moo ko yéex moo ko moo ko moo ko yilif réew mu nekk da am devise ci misaal tey ñun ñu ne suñu Sénégal benn benn xeet benn jubluwaay benn pas-pas yooyu dañ ko war a respecté gëm ko di ci dox réew couleur yi war nañ koo xam ni mu tëdd war nañu ko xam lépp lu koy gàkkal lépp lu koy suufeel tam waruñu kon war nañ koo sàmm di ko sàmm saa yi ñuy wax hymne national réew bàkk réew bu ñu koy yëkkati di ko bàkk ñun ñëpp war nañoo taxaw war koo jox cër kenn warut yëngatu loolu nag ñu bare ñun duñ ko bàyyi xel mën ngaa romb ñuy ñuy ñuy bàkk réew mi yëkkati bàkk réew mi nga gis ni ñuy dox seen soxla ñenn ñi di waxtaan ñenn def te loolu warteef la ci réew mu nekk citoyen bu nekk bu ñu yëkkati bàkk réew mi dangaa war a taxaw ne tem waratoo yëngatu ba bàkk yu daanu loolu daf laa war institution yi nga xam ñoo ŋànk réew mi dañ leen war a respecté moo xam yu politique li moo xam yu yi àtte la moo xam yeneen yi la bu manti doon daal yi yoonal yi tëral yoon yi bu ci nekk war nañ koo jox ak yi ñu ko war jox moo tax léeg-léeg danga gis nit ku nekk ci barab du jëm mi nit ka ngay respecté waaye barab ba mu nekk moom ngay respecté parce que institution nekkatul nit léegi ab institution la boo xam ne ne état moom lay jëmmal cër boobu moom jox kon cër bi nga koy jox joxoo ko ko moom waaye état bi nga koy jox kon yooyu warteef la yoo xam ne citoyen bu nekk doom réew mu nekk war naa xam ne amee na comme réewam war ko ko sàmmal naka noonu nag alal ji nga xam moom ñëpp ko bokk loolu defe naa ne lu la waaye itam bu ñu attaqué réew mi nga dem défendre ko loolu ñun ñëpp la war tey beneen réew bu jógoon feneen attaqué réew mi dal ci kawam xëy na militaire ñooy njëkk a dem waaye am na fa bu fa àggee képp toll ci man yor ngànnaay wala nga wala nga mën a wala nga mën rek sa warteef la nga dem ci front bi dem défendre réew mi loolu tam la boo xam ñun ameel nañ ko sunum àq la juñ ci ñum réew am ci ñun waaye itam nga nangoo défendre njariñu réew mi intere réew mi yow lépp looy dox ak lépp looy wax sa warteef la nga sàmmante ci ak la cay njariñu réew mi maanaam intere réew mi fu ñu ko tuddee yow moom nga war di défendre défendre gi ñu défendre itam ba tey àq la yoo xam ne nii amee nañ kon réew mi am na ay warteef yu ñu war suñu liggéey ak réew mi ku nekk nag war koo xam noonu ñu amee ay warteef yi ñu war suñu digg réew mi tam nag noonu la état bi amee warteef yi ko war suñu digg ak ñun te loolu mooy suñu àq ak suñu yelleef yooyu nag am na ñoo ay droit civil maanaam droit yoo xam ne ci wàllu dundin lay nekk lu mel ne sa sañ bi nga am ci sa bopp loolu état bi la war a garantir sa jëmmi bopp bi sañ-sañ bi am ci soppandiku ci ni nga bëgg a soppandiku nga ko sa bopp loolu ku nekk dañ la ko a bàyyee ndax yàlla moo ñu noonu moo ñaare sañ wax sa xalaat am xalaat di ko wax loolu réew mi daf ko war a garantir ñëpp ndax suñu àqal ak suñu yelleef te moo ñu ko war a sàmmal sañ-sañi pas-pas man lii laa bëgg gëm kii dafa bëgg nekk jullit kii dafa bëgg nekk leneen kii dafa bëgg leneen ku nekk la nga jàpp ne moom nga moo la doy ci pas-pas am nga sañ-sañu gëm ko te yoonu kenn du ci nekk te état bi dafa la ko war a sàmmal sa àq ci moom nga xam ne lii yaa ko moom ci misaal bu dee kër ñu ne sa kër la bu dee tool ñu ne sa tool la defal la titre foncier nga am ko moom ko aq am ak moo moomeel ci réew mi tam suñu àq la te réew mi def ñu ko war a sàmmal warteef la ci moom àq la ci ku nekk am nga ko ci réew mi mu sàmmal la bu ñu jëflante ak yow ñu jëflante jëf leen ku tegu ci maanu maanaam bu ñu xool fa nga bokk bu ñu xool li ngay na nga mel bu ñu xool sa diine bu ñu xool saw làkk waaye nañu xool ne yow doomi réew mi nga ñu jëflante ak yow ci maandu gi nga xam ne ni moom la réew mi tëra ñu war caa jëflante ak ñoom yooyu nag mooy droit civil yooyu àq yelleef yi nga xam ne ñoom ci wàllu dellu ci wàllu googu yooyu maanaam ñi yor wàllu atteeg yu mel noonu ñoom ñoo ñu ko war a sàmmal buñ ko jalgatee ñoom ñoo war a taxaw lijjanti lu mel noonu am na ay droit politique yoo xam ne nii itam dañu ko war a sàmmal suñu àq la àq diñu am ci bokk ci liy doxal réew mi waxoon nañ ko léegi ay yoonu yoon loolu mënta ñàkk la ñu garanteel ñu ko te mooy ku nekk am nga àq ci falu am nga àq ci ñu fal la am nga àq ci dem fale ji loolu am nga ci sañ-sañ ñu di fekkente nag am na sart yi yu koy tënk tuuti kon droit yooyu itam état bi daf ñu ko war a sàmmal waruñ koo xañ kenn ci lu dul loo xam ne nii yoon moo la ko xañ bokk gi ñuy bokk ci li doxal réew mi nag réew mi nekk ak na koy doxee am na ñoo xam ne nii maanaam dañ koy jaaral ci seen fal ay nit ñu wuutu leen di leen àggale seen i xel ak seen xalaat te fa mu war a àgg ñun ni ñuy doxale nga xam ne ñoom parlement ñu fal leen ñoom ñoo ñu fay toogal bu ko def amee xalaat yow sa député moo lay jàlleel yu mel noonu ci biir réew am na ñoo xam démocratie direct la ñuy def nga xam da ngay dugal sa kàddu directement ci ni doxal réew mi loolu am na système yoo xam ne ni am na ci biir àdduna bi am dañu àq yoo xam ne ni ay droits sociaux la yoo ne ni moom tam nit ñi ci maanaam doomi réew mi dañ ko am te réew mi war a leen koo sàmmal lu mel ne ku nekk am nga àq ci ñu jàngal nga xam li nga war a xam njàng droit la boo xam citoyen bu nekk am nga ko réew mi war la ko garantel surtout ñu wax éducation de base nga xam moo tàmbale CI ba troisième loolu réew moo la ko war a sàmmal ku nekk am nga sàq ku nekk am nga àq ci boo feebaree faju wutal la bare bi fajukaay yoo xam boo feebaree dem fa ñu faj la loolu réew mu nekk war warteef la ci réew ma mu sàmmal ko waa réew li ñu wax féexlu barab féexlu gaay maanaam fi ngay mën a féexale say sa xol boo liggéeyee ba noppi wala boo defee ngay def ba noppi barab yooyu war a mën di sa bopp di féexal sam xel loolu itam àq la joo xam ne citoyen dañ ko am te réew mu nekk war koo war caa dox leen ko sàmmal kon yooyu buñ ko tënkoon ñu mën nañu àq yooyu moom ñëpp a ko am loolu nag réew yi ñuy waxtaan yëpp ñoo ko bokk léegi nag bu ñu ñëwee nag Sénégal nii ñu ko waxtaanee ci biir àdduna bi lii daanaka àdduna bi ko bokk waaye bu ñu delee sàtt réewum Sénégal muy constitution nga xam ne ni moo tënk Sénégal dañ cay gisaat àq yi ak yelleef ak warteef yëpp mu tënkaat ko fa ne nii la war a moo tax dañ ci jukki yenn ngir ñu man koo bàyyi xel ci bu ñu delloo ci sàttum réewum Sénégal ñu bàyyi xel nag ci ne sàtt réew mi maanaam loi la bu matale bu bu tënk la dafa am lu ñuy wax loi d'application moom mooy leeral nag lu nekk nañ ko war a doxale noonu lañ koy doxale waaye daal am na yu ñu tënk yu baree bari yoo xam ne nii mën nañ ciy tudd yennat bokk na ci boo demee ci tànk article set bi maanaam ci bànqaas bi juróom-ñaareel dañ fay wax ne jëmmi doomu aadama dañ ko sacré maanaam dañ koy sellal kenn amul sañ-sañu laal ko sa jëmm jii kenn amul sañ-sañu forcé la dugg sa biir di jëfandikoo ci yow ko neexee dañ la ko war a sàmmal ñu ne foofu nag état moo am obligation ak wartiif ci respecté jëmmi doomu aadama ji waaye itam sàmm ko aar ko ba kenn du ko jalgati mooy kenn amul sañ-sañu dal ci sa kaw jëfandikoo violence jël sa kaw jëfandikoo si jëmm la neex loolu sa àq la sa jeelef joo xam ne nii réew mi daf la ko war a sàmmal war ñoo bàyyi kenn mu cay doxe na ko neex mu dellu waxaat ne kum doon ci ñun am nga àq ci dund sa dund gi sa àq la te réew mi moo la ko war a sàmmal lépp lu koy faagaagal réew moo ci war a taxaw bañ sàmmal la am nga àq ci jëfandikoo say sañ sa liberté am nga àq ci am sécurité kaaraange gu mat sëkk am nga àq ci ni nga bëgg a tëgge sa personalité ak ni nga bëgg mu mel ne am nga àq ak yelleef ci sañ-sañ ci tëgge ko mel noonu mel waaye am na ñoo intégrité corporelle maanaam mooy sa jëmm ni mate nii kenn waru koo wàññi kenn amul droit di ko wàññi maanaam dagg ci cër wala damm ci cër wala yàq ci cër ci lu dul ñu teg ko ci eh, ay lu ñu yoonal kon ñu ne sa intégré sa intégrité corporelle physique maanaam loolu état bi daf la ko war a sàmmal kon yooyu àq la yoo xam ne nii état bi moo ñu ko war a sàmmal ay droit la yu ñu am sunum réew war ñu ko sàmmal te bind ko ci suñu sartum réew boo demee ci article 8 da gis ne Sénégal réewum Sénégal mooy garanteel mbooleem doomi réewam seeni liberté individuelle seeni sañ-sañ ci seen bopp yu fondamental yi mënta ñàkk yoo xam ne dañu koy judduwaale seeni droit économique moo leen koy garanteel seeni droit sociaux itam moo leen koy garanteel mu ne nag mën nañ caat yu mel nii am nga ay liberté civile ak politique liberté d'opinion moo ne may nga am sañ-sañ ci gis-gis loolu mu ngi ne faa nga ci biir sàtt réew mi ñu ne réew mi moo ko war a sàmmal ñëpp ku nekk am nga sañ-sañ ci am sa gis-gis ak na ko gisee sa sañ-sañ ci wax la nga gis sa xalaat réew mi daf la ko war a sàmmal sa sañ-sañ ci wàllu jël xabaar wala tas ko dañ la ko war sa sañ-sañ ci créer mbooloo ay association wala yu mel noonu mbooloo mu ab groupe dañ la ko war a sàmmal sa sañ-sañ ci dajaloo di waxtaane mbir mu ñu yitteel ñun dañ la ko war a sàmmal suñuy sañ-sañ ci yu ci biir réew mi dan la ko war a sàmmal suñuy sañ-sañ ci génn wane suñu naqar ndax am nañu naqar la ñu naqar ñu war koo wane ci façon bu jàmm bu tegu ci jàmm yooyu ay liberté la yooyu liberté yëpp nag état bi la war mu sàmmal ko ñun ñi en tant que ay sañ-sañ suñu mbatiit suñu culture suñu aada ak cosaan ku nekk am nga sañ-sañ say aada ak say cosaan nga di ko dund état bi daf la caa war a aar ba ku nekk la nga xam mooy sa démb ak sa barki démb sa ndono nga di ko sàmm di ko dund am nga sañ-sañ suñuy sañ-sañ ci wàllu diine état bi daf ñu ko war a sàmmal kenn warut a forcer kenn ci diine ku nekk war nañ laa bàyyi la nga la la doy nga gëm waaye nag bul yàqal keneen suñuy sañ-sañ ci wàllu philosophique maanaam mooy xalaat xel xalaat pas-pas biñ ci am ak nañuy xalaatee ak nañuy gisee loolu dañu ko war a sàmmal suñuy sañ-sañ ci ñun dañuy liggéey ci barab gis nañ ne war nañoo créer mbooloo moo xam ne nii moo ñuy sàmmal suñu àq suñu yelef ci barab bi ñuy liggéey ñu ko di syndicat liberté syndicale loolu état bi daf ñu ko war a liggéey liggéeykat yëpp am nañ sañ-sañ ci créer ko te état bi nag war leen ko aaral kon liberté yooyu nga gis yooyu yëpp suñu suñuy sañ-sañ la yoo xam ne nii sunum réew moo ñu ko war a sàmmal te loolu dañu ko bind suñu sart réew mu leer nañ droit yi ma waxoon léegi itam noonu lañu ko bindee droit à l'éducation maanaam am nga àq wala boog euh, yoon la nga amum njàng mi nga war a ñu jaaral la fi ñu war a jaarale xale bu ci toll ci jàng ñu jàngal la sa àq ci mën a liir ak mën a bind loolu réew mu nekk yaa ñu ko ameel suñu réew dañu ko ameel jàngal nit ñi bañ mën a liir mën a bind loolu warteef la ci ñoom seen warteef la suñu àq la ñu war ñu ko ñoom ñu gàddul ko ñoom suñu àq ci amuk moomeel luñ moom lu luñ jilif moom ko suñu àq ci am liggéey bu baax bu ñuy mën suturloo suñu droit la réew mi war ñu ko sàmmal suñu droit ci bu ñu feebaree faju waxoon naa ko léegi suñ droit ci am aalam environnement bu baax bu set ci boo xam ne ni lenn luy lore du ca nekk loolu dañu ko war a sàmmal sunu war sunu àq ci am information boo xam ne nii day leer nañ jóge ci barab yu baree bari loolu tam dañu ko war a sàmmal kon yooyu ay droit la yoo xam ne moom tam ba tey mi ngi ñu bind ne citoyen bu nekk wala doomu réew mu nekk ci réewum Sénégal réewum Sénégal warteef la ci moom mu sàmmal la yu mel noonu li ci yokk nag mooy li ma waxoon léegi ne yooyu ma tudd nag ci yu ci nekk dafa am ay loi d'application moom yoo xam ñoo ko moo xam moo koy organisé lu ci nekk boo ko bëggee jëfandikoo am na yoon ak fi ñu koy tënk ak yi nga xam ne mooy tax du déborder ndax ku ne xam ne liberté tam bu ñu ko tënkul ci benn lu koy téye lu koy tënk day mujj déborder bu baax dootu nekk liberté waaye anarchie lay doon wala boog fawda moom lay jur demee ci article 10 ci charte réewum Sénégal day wax ne ku nekk ñun am nga àq ak yelleef ci wax ak tasaare ci sañ-sañ bu ma sëkk say xalaat am nga sañ-sañ àq ak yelleef ci ak ci tasaare say xalaat ak ci sañ-sañ mat sëkk nga tasaare ko yaa xam nag noo koy tasaare benn da ngay wax ñuy dégg wala nga di ko bind ñu koy liir wala nga def ci image maanaam foto wala yu mel ñu koy gis wala boog sax nga génn di dox doxu jàmm ngir mën a wane say xalaat loolu yépp dañ la koy eh, maanaam sa ak yelleef yoo xam ne moo la ko war sàmmal loolu lépp nag li ma waxoon léegi da ci dellusiwaat nag na fekk loolu tam boo koy doxal nag yow tam bul gàllankoor droit ak ñeneen bul yëngal itam li ñuy wax daluk dalu daluk nit ñi ordre public maanaam bu ko bu ko jalgati loolu boo ko defee rek day daal kii bu ñëwee ci article 12 ba tey ci charte réewum Sénégal dañ naan doomi réewum Sénégal ñëpp am nañ droit ci ak sañ bu ma sëkk ci former ay association ay mbooloo ay groupement économique am nañ sañ-sañ wala groupement culturel maanaam ñoo bokk suñuy aada ak suñuy cosaan ñu def mel ni mbooloo ngir di ko sàmm wala yu mel noonu yooyu yëpp dañ ci am sañ-sañ ci di ko def état bi tam war ñu ko aaral waaye na fekk tam ñu tënku ci sart yi nga xam ne nii moom tam mooy wax wax loola mën a dem boo demee ci article 14 ba tey ci ak ci sart réewum day wax ne mbooleem ñi dëkk Sénégal di doomi réew mi am nañ sañ-sañu ci déplacé ci biir réew mi nam leen neex am nañ sañ-sañu tam dëkk fu leen neex ci biir réew mi fi nekk nii en tant que citoyen sénégalais am nga sañ-sañ fu la neex ci biir réew mi nga dem fa fu la neex ci biir réew mi nga dem dëkk fa bu la neex sax nga tànn dem dëkk ci bitim réew kon loolu tam ba tey suñu àq ak suñu yelleef la yoo xam ne nii réew mi daf ñu ko war a sàmmal mu des nag ba tey li ma waxoon léegi rek mooy nga tëggu nag ci loi ak règlement yi nga xam ne nii mooy leeral yu mel noonu boo demee ci article quinze day wax ci moomeel mu ne sañ àq ci moom état daf ko war a garanteel mboolem doomi réew mi moo tax li nga moom muy sa kër si titre foncier bi nga moom muy sa kër wala sa li nga xam ne yaa ko moom kenn amul sañ-sañu teg ci loxo lu dul ne dañoo dem ba gis ne kat njariñul mbooloo mépp mépp moo daje ci ne lii dañ koo war a jël ci yow ndax mbooloo mi daf koo soxla ñu ne boobaa nag bu ko mbooloo mi soxlaa tam te ñu war koo jël ci yow tam te ñu constaté gis ne lu wér la balaañ koo jël ci yow war nañu laa ndàmp ndàmpaay lu ko mën sëkk jox la ko balaa ñu jël kon ak ci moomeel lu la suñu biirum réew mu ñu ne tam ci réewum Sénégal tam sant loolu tënk na ne góor ñi ak jigéen ñi ñooy am àq ci am suuf suuf nekkatul rek ne góor lañ koy jox mooy mooy moo ciy liggéey déet léegi jigéen ji bëgg a liggéey am na sañ-sañ ñu jox ko suuf góor gi bëgg a liggéey am na sañ-sañ ci jox ko suuf si nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk ñu jox la si nga cay liggéey na fekki nag nga ko ci luwaay ba tey loolu kon yooyu benn la ci àq yi nga xam ne nii mën nanoo jàpp ne réewum Sénégal yaxal saxal na ko ci biir sàtt réew mi kon ñu gis ne yooyu lu leer naa ñu loo xam ne defe naa ne buñ ci delloo bu ko ñëpp xamee te xamee ko noonu te xam ne nag ak joo gis ak yelleef joo gis nag dafa am nuñ ko limité am nuñ ko organisé ndax dañuy bañ mbir mi dem dugg ci ay nit ñi di ko foye mu nekk anarchie boo xam ne nii day indi débordement ci biirum réew moo tax ku ko bëgg a jëfandikoo tam nag da ngay gëstu ba xam liberté bii ñu ma may yan ak yan ak yan lañ ci gàll yan ak yan lañ ci tënk naka naka naka laa ko war a mën a jëfandikoo te du ma yàqal ñeneen ñi kon foofu la gisee ne kon ak waxtaane citoyenneté lu am solo la waaye ñu bàyyi ci xel nag citoyenneté moom nit daf koy fàggu maam da ngay judd ba noppi door ko am ndax ak yelleef yoo xam dañu la koy jox patriotisme nag wala civisme boobu nga xam nag moom la nit di judduwaal nag moom moo ëpp solo lépp moom moo tax moom ci la war a gën a liggéey te li ñu koy xamee nag ci façon yu bari nag fii ne boo demoon cim réew tey ñi nga xam dañoo dem cim réew jël fa nationalité léegi doomi réew ma lañ mën naa am am nañ droit yooyu doomi réew am na àq yëpp ña ngi koy am di ko am léegi ñooña la ñuy am am nationalité réew mi da ngay gis ne ñooña seen xel fu mu toll dee ne seen réewum cosaan parce que lu yàlla def ci ñun la maanaam ndax lu yàlla def ci ñun la moo ñaare ñu ko mën ngaa dem ci réew am fa nationalité am fa àq yu baree bari yëpp nga am ko waaye foo toll sam xel day ne ci sam day ne ci sam réew ñu bari ci ñun sax bu ñu demee ci réew am fa nationalité dem fa ba am fa doole am alal ju baree bari du ba da ngay jël alal jooju di ko delloo seen cosaan di ko delloo seen réew seen réewum cosaan ndax yëg-yëg ba moo dul dee ci seen biir te ñaare bu réew mañ leen jox nationalité bu nekkee ci ay jafe-jafe li yëpp mën nañ ko faa bàyyi dellu seenum réew nga gis tam li ñuy xalaat seen réew moo ëpp la ñuy xalaat ci réew mi nga xam daf leen adopté boo demee cim réew itam nga xam ñooy dee réew mi cosaanoo fa nga xam jëluñ nationalité ñaare boo fa jëlee nationalité gisin bi ñuy am ci yow dañuy aw am sikki sàkk ci yow dañu naan daal nitu nitu intérêt dong la njariñ a tax mu ñëw ci réew mi jël fi jël fi nationalité waaye bokkul ci waa réew mi dañu am beneen gis-gis bi ñu am ci yow moo tax léeg-léeg sax maanaam ñi jël nationalité ci réew nañu war a jaxasoo waa réew ma dëgg-dëgg duñu jaxasoo ak noonu ña fa cosaanoo ndax dañu am yëg-yëg bu ñuy am ci ñoom noonu moo tax yëg-yëg boobu moom la ñu war a liggéey kon patriotisme wala civisme boobu képp kuy yar walla ngay kilifa ci barab walla ngay kuy wax ñu lay déglu yëg-yëg boobu ñu yàlla mooñaale moom la ñu war a fexe ba di ko màggal ci nit ñi ndax mooy melokaan wi ñu soxla rawat na nag xale yi daw ji ñu fexe bañ màgge fexe ba mu nekk ci xelum ñëpp ñu am yëg-yëg boobu ñu màgg màggaale ko fi ne am moo xam boo fa demoon xale bu tuuti bu toll ci fukki at fukki at da ngay toog di wax ak mu naan fii àjjana la fii mu àjjana la yëg-yëg bu dañu ko def ci ñoom nga xam ne ñoo gëm ne ñoom seen réew fu dul fu dul fu dul seen réew moo dax ci àddina man seen réew moo dax ci àddina fu dul moom réew maa gën ci ñoom yëg-yëg boobu lañ ko def ñuy ak xale yu tuuti di ko màggale am na réew moo xam boo fa demoon tey xale bu tuuti moo lay wax lu mel noonu am na réew moo xam boo fa demoon xale bu tuuti ngay waxtaan mun la fii mooy ndeyi àdduna àdduna bépp fii mooy seen ndey nga gis ne moom yëg-yëg boobu dañ koy def ci am na réew xam boo fa demoon tey xale yu tuuti ngay gis ñu jàpp ne àdduna bépp ñoo leen war a yilif ndax gëm nañu ne yéen yéen féete ñu kaw ñëpp beneen national beneen nation bu mën doon ci a leen féete kaw loolu pas-pas la ñuy def ci ko màggaale loolu nag yar ak éducation ak defar gi ñu defar nit ki socialisation bi ci lañ ko dugal di ko def moo tax loolu ñëpp ci am responsabilité muy ñuy jàngale muy kilifa diine yi kilifa adduna bi kilifa aada yeeg cosaan ñiy lépp képp koo xam daal am nga kàddu yi wax ñu lay dégg wala nga am baat di wax ñu koy jëfe sa warteef la loolu nga di ko màggal ci biir xale yi te it ñu màggal seen bopp biir nag ne nag yëg-yëg boobu ñu def ci ñoom nag nañ bàyyi xel ne suñu borom moo ñu ko mooñaale mi ngi mel ne lekk ak naan rek lekk ak naan ñëpp dañ koy judduwaan waaye nooy lekk ak nooy moom dañ la koy jàngal bu ñu la ko jàngalut mën ngaa lekk-lekk yi nu ñaaw wala ngay naan naani nu ñaaw naka noonu tam nag maanaam patriotisme boobu nga xam ne ni sunu borom ñu ko mooñaale yar bi mooy ñëw ngir defar ko ba nga man di ko doxe te doo yàqal keneen moo tax nañ gëm ne kon bëgg sam réew tekkiwul bañ keneen maanaam man daal sama patriotisme rëy na àgg na fu kawe tekkiwul ne damaa war a bañ keneen ku dul waa sama waa réew tekkiwul loolu tekkiwul tam ne damay tëje sama biir rek keneen ku bokkul ci man du fi dugg léeg-léeg am na ñu extrême droite maanaam boo demee ci yenn réew tubaab yi am na ñuy extrême droite nga xam ne ñoom dañoo gëm ne ñoom ku bokkul ci réew ma rek bokkul ci léegi di leen bundu di leen wax wax yu ñaaw di leen ci leen ñoom façon boo xam ne nii loolu tekkul patriotisme tekkiwul loolu ndax da ngaa war a nangu ne man ni ma amam réew fonk ko am yëg-yëg boobu noonu la keneen amam réew fonk am yëg-yëg boobu kon xëy na ay njariñ ak yeneen moo ñu boole ñu dese ci barab boobu gis nag ne yoon wi gën a gàtt nag ci jëmbat ruu googu wala boog yëg-yëg boobu jëmbat ko ci nit ñi surtout ci xale yi mooy ñu jox leen royteef ñun mag ñi nañ joxe royteef ci seen bopp ku nekk ci ñun booy dox ak lépp loo mënti def rawat na nag kilifay diine yi rawat na kilifay politique yi ñoom war nañoo fexe ba lépp lu ñuy def lu mu tuuti tuuti nañ ci sàmmonteeg sart bi tënk réew mi buñ ko ci gisee muy liñ bind mu leer naññ nañ ci tënku bu fekkee gisuñ ko ci bind ko mu leer nañ war nañoo inspiré wu ci sart nañ ko lañ bind ngir mën a doxal la ñuy doxal waaye ñoom kenn waru leen a may ñu jàggati sart réew mi kon képp kuy war nañoo joxe war nañoo jox royteef xale ñu jox leen royteef ci lu mel noonu nañ jox xale yi royteef ci wormaal alal réew moom tey man kenn wërta nangu ñu jàggati alal réew mi dañ la ko dénk yow war nga ko sàmm ba ñoŋ ku ci war a am na ci am ci yoon moom ci war a amee waaye itam nag képp ko xam dañoo jël alal réew mi ñëw jox la ko te joxuñ la ko ci yoon bu ko jël ndax bu fekkente sa civisme sa patriotisme ñu ngi dox dëgg-dëgg waroo ko jël ndax mas waxoon nañ ay jamono ne nañ la kii sàcc ak kii kii ñuy sàcc di ko jox daanaka sorewuñ sàcc ak sàcc la ñu nit kon war na na fexe ba képp koo xam ne nii kilifa nga ak koo mënti doon alal réew mi buñ ko la ko dénkee nga sàmm ko waaye itam buñ ko jëlee jox la ko yow te joxuñ la ko ci façon bi ñu la ko war a joxe waroo koo jël su fekkente ni bëgg ngaa joxe roy teef bu rafet bu rafet ci xale yi war nañoo joxe royteef bu rafet tam ci wormaal ak sàmm alal ji nga xam ne ni suñuy moroomi doomi réew mi ñoo ko moom bañ koy jalgati bañ bañ leen bañ leen ko yàqal mer nañ rek dem yàq wala ñu mel noonu loolu tam war nañ cee joxe royteef ba xale yi xam ne nit ki li moom kenn waru koo laal te lu dul loo xam ne ni moom daf caa ànd war nañ leen jox royteef ci tànn baat ak segg ak tànn baat yi ñuy jokkalante suñu biir bu ñuy discuter en tant que ay kilifa bu ñu toogee di wax wala ñuy discuter wala ñuy jox ay kàddu baat yi ñuy jokkalante suñu biir war nañ ko segg tànn ko bu baax a baax a baax ndax xale yi koy dégg muy jeexitan ci ñoom loolu war nañ ko bàyyi xel kon bu ñu ko dëgg dañuy wax ne daal roy maanaam yar tey joxe roy téef mooy ni ñu bëgg xale yi mel ko ëllëg ci warmaal réew mi sàmm réew mi nekk ay citoyen yu baax nañu fexe ba ñun mag ñi wala ba kilifa yi moo xam diine ak diine ak politique yëpp ak ñëpp ñoo xam ni ñu ngi lay wax ñu leen dégg ñu fexe ba mel noonu boo ko defee xale yi di ko gis bis bu màggee ba ëllëgee ñu mel ne mel noonu waaye nag foofu la ñuy wàccee suñu kàddu am na ku ci mas wax lu siiw loo xam mën naa walaabul fii woon na kat boo demee ci kër fekk boroom kër ga mu teg ay dëndam ci digg kër gi di tëgg na mu ko neexee nee na boo xoolee gis waa kër ga di yëngal seeni loxo ak seeni tànk loolu moom bu mu la bett ñoo ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fan ak wér lool ba li nga bëgg a liggéeyal islaam yoonu murit ak àdduna bi suñu borom defal la ci lu kawe sa njort gannaaw mbokk yi la doon teewlu yépp jariñu nañ bu baax a baax a baax ci waxtaan wi ba <coughs> njort naa ne ku fi jógee dana gën a bàyyi xel ban taxawaay la war a am ci réew mi dana gën a bàyyi xel it tamit moom yan àq la am ak ay àqam ak ay sañ-sañam fan la yam waaye it kan moo yor ay àqam ba kenn du ko mën a jaay doole mu mel ne ñi nga xam ne ñooy soog a ñëw xëy na ci waxtaan wi Sëñ Fallu mi ngi doon waxtaane al muwaatana bayna al xuquqi wal waajibaat la citoyenneté entre devoir et droit muy àq yi nga xam ne ku dëkk cim réew am na ko ak warteef yi nga xam ne moom am na ko tamit ni ma ko waxee sunu borom daa bind doomu aadama yi bi mu leen bindee mu wàcc leen ci kaw suuf bi mu leen wàccee mu boole leen ngir ñu nekk ay góor ak jigéen waaye naa ko wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu nga xam ne kon peuple day am ay askan daal di am ngir ñu mën a dundante ngir ñu mën a xamante ak yu ci aju léegi nag fu loolu am jóge nañ ci état de nature ñëw ci état de société mooy nit ñi bu njëkk bañ daan dund ci àll bi xëy na ñoo bàyyi may ñoo daan dund bu ko defee ku ci nekk mën naa dund ak boppam soxlaalut keneen di dundante ak moom bu ñëwee ba ci yàgg nag àddunay dox bañ ñëw ci li ñaan fi nga xam ne nit ñëpp dañuy bokk di dund muñ ñaan luñ naan ab société loolu la tuddee contrat social buñ booloo mën ak diw ak diw ak diw ku nekk nekk cib dëkk di dund il faut am loo xam ne moo ñu lëkkale li ñu lëkkale nag loolu lañ naan ay droits loolu lañ naan ay loi ak yu ni mel ku nekk ci dëkk bi am na lu mu war a sàmme dëkk bi loolu lañ naan ay devoir muy ay waajibaat loolu la ci sëriñ bi jublu mu mel ne bi mu ñëwee tàmbali na di tasaare di leeral baat yi yu mu tëggoo yu mel ne almuwaatana jóge ci alwatan muy réew léegi ki dëkk ci réew bi moom lañ naan am ma réew mooy ab citoyen kooku nag koo xam ne cim réew la dëkk te yoon jox ko sañ-sañ ak ay àq yoo xam ne am na ko ci réew ma kooku lañ naan ab citoyen léegi nag bu bëggee réew ma nag fonk lépp luy dox ci réew mi loolu lañ naan ab civisme civisme mooy lépp li nga xam ne dana la jàngal nan nga war a nekk ci réew mi ak yan ñooy màndargay réew mi yu mel ne drapeau yeeg euh, attekaay yeeg njiit yeeg lépp loo xam ne war nañ ko màggal ci réew mi wala war nañ koo warmaal kon ñetti baat yooyu bi mu ko xam ne ne ku nekk dèjà day xam moom fan ak fan la ci toll bu ko defee mu mën a gën a bàyyi xel loolu waaye kon waxtaan wi solo si moom laa doon tënk mooy munta ñàkk ndax comme dundatuñu ci àll bi ni ma ko mën a waxee muy ak bàyyi ma yi ay nit la ñuy dundal nit ñooñu ñuy dundal nag ñu am dëkk bu dëkk ñu limité dëkk ba kon bu boobaa yoon la ñu xam lan ak lan ak lan la ñu war a dundee ci dëkk boobu rawatina bu fekkee dëkk bi moo ñu may suñu euh, nationalité nga xam ne foofu lañ dëkk kon moo tax waxtaan wi am solo ci laytaay googu nga xam ne indi na ko ginnaaw loolu nag leeral nañu nag lan mooy sart yi nga xam ne mooy tax euh, euh, àq ak sañ-sañ yooyu mën a am cim réew am réew bu ñu ko doon tënk am na benn daanaka ñu seen xam-xam màcc ci wàllu état ñëpp nee nañu réew mooy li nga xam ne suuf lay doon am lu ko tënk am njiit am askan woo xam ne moom moo nekk foofu loolu bu amee rek mën naa ne ci tënk rek réew euh, taxaw na léegi nag biir réew mi ña dund nag ngir ñu mën a dund seen àq ak ak seen sañ-sañ il faut que am sart yoo xamante ni moom mooy dëgëral loolu ba ci njëkk mooy état de droit mooy réew moo xam ne réew mu tege ci yoon la réewum dictature nga xam ne liñ naan euh, nit ñi ñooy tànn ki leen ki leen doy du ma wax ki leen neex xëy na waaye tànn ki leen doy waaye kooku tamit bu ñëwee day àtte loo xam ne ci réew mi lay dellu dañu naan gouvernement pour le par le peuple et pour le peuple mooy nit ñi ñooy tànn waaye ci ki ñuy tànn tamit ci ñoom lay liggéeyal nga xam ne seenu seenu seenu seenu euh, surga la war a doon doon nga ko wax lu mel ne daa waxee na maa ngi ciy bàyyi xel muy fi ngay waxee woon muy lu am solo muy euh, ki ñu fal ci njiitum réew moom moo war a jaamu waa réew mi waaye waruñ ko wax ne borom réew mi ndax moomul réew mi njiitu réew mi la war a doon nit ñi ñoo ko jox seen ay kàddu na ko ñaañu doy kon kooku moomul réew mi waaye day mel ne daa war a daa war a nekk euh, surga bu waa réew moom yi ba ca topp mooy réew mi nekk réew mu jaar yoon muy liberté ak démocratie démocratie mooy lan réew moo xam ne nit ñi ñooy fal ki fay nekk buñ ko waree buñ demee ba euh, gis na liggéeyatu ñu mën koo am sañ-sañu folli ko fal keneen loolu moo ko wutaleeg réew moo xam ne réewum dictature la wala réew moo xam ne réewum royaume la kon loolu mun a ñàkk balaa ñuy ñëw ci àq ak yelleef yi il faut que réew moomu nekk réew moo xam ne ci démocratie rek lay dox waaye ñetteelu sart bi nga xam ne mooy tax lii mën a am mooy defar xelu nit ñi ba nga xam ne ñoom danañ xam lan mooy seeni Euh, lan moo leen boole ñuy dund ci biir am réew ak lan ak lan ak lan lañu war a dundante seen biir ba jëflante boobu euh, mën a rafet ñeenteel bi mooy ki nga xam ne moom lañ tànn mu jiite loolu mu xam yan mooy soxlay waa réew mi euh, ndax it mi ngi koy tudd boo demee liñ naan ci printemps arabe boobu fi amoon mooy xeexi réewi arabe yooyu ku ne xam ne ne am na ci réew moo xam ne xëy na du ma tudd réew mi essence sax wala gasoil bu ñu ko daanaka daawuñ ko jënd courant daawuñ ko fay dëkk ba neexoon na waaye li ñu amutoon mooy mën a wax seen xalaat ci réew mi mën a dox li leen neex ci réew mi ba tax na dañoo mujj euh, fipp fipp gu méttee métti ba ka fa nekkoon jiw réew mi dañ ko rey digg bëccëgu ndara kàmm te réew moom moonte amoon na lépp bépp koom kon li am solo mooy yow mi jiitam réew war ngaa xam waa réew mi lan lañ soxla pour nga mën a dox ci réew mi loolu réew moom man di doon kon bokk na ci sart yi nga xam ne wax na ne moom mooy téye euh, am réew moom moo tax ba civi ba ba citoyenneté boobu Euh, mën a ñoŋ euh, mën a am solo ginnaaw bi nag ci la ñëwee nag ci dëgg dëgg nag lan mooy àq yi nga xam ne moom la nit ki am ginnaaw ba mu juddoo ci réew mi wala sax juddoowut ci réew mi waaye réew ma jox na ko sañ-sañ ak ay àq yi nga xam ne mën naa tax mu ne ci réew ma yan ñooy àq yooyu àq yooyu nag mbooleem ci àdduna boo dem ñaa ñu ñaan ci euh, la charte de droits de l'homme la charte des droits de hommes nga xam ne adduna bépp ñoom ñoo commencé signé ne lii kat moom lañ bokk ne nit lii mooy ay àqam ak ay yelleefam ba ci njëkk ci àq yépp ci réew moo dem mooy nit ki kat am na àqi dund moom am na àqi dund loolu islaam ku ne xam ne ne teral na doomu aadama bu baax a baax a baax bëggul ñuy xas nit ki bëggul ñu koy yàq deram bëggul ñu koy faagaagal bëggul ñu koy def loolu lépp àq yi nga xam ne moom lañ wax yooyu islaam lu ci bari ci daanaka ci lañ ko euh, ci lañ ko jëlee islaam bëggul kuy saaga nit bëggul ku koy toroxal bëggul ku koy ku koy ku koy boddi ci diineem wala ci xeetam wala ci bind bu mu mel yooyu yëpp islaam da ko aaye loolu it mooy àq yi nga xam ne nit ki euh, nit ki am na ko bu ñu demee tamit ci constitution yu réew mii di Sénégal depuis 1958 ba ci bi ñu teqal ko ak waa Mali ku ne xam ne ne ñoo bokkoon ba ci troisième constitution bi nga xam ne 63 la woon ba ci constitution bu 2001 bi ba ci dernière constitution bi nga xam ne ñu ngi ko defoon référendum en 2016 constitution yooyu yëpp nag boo demee ci am na ci la ca njëkk mooy nit ki dafa am ay àq yoo xam ne état bi garantil na ko ko muy moom ñu xam ne doomu aadama la boo xam ne kenn du ko néewal doole ci diina ju mu bokk kenn du ko néewal doole ci askan mu bokk kenn du ko néewal doole ci ne moom dafa ñàkk ba ca njëkk mooy bu nit ki juddoo rek liñ njëkk wax constitution bi mooy ñëpp ñoo yem ci kanamu yoon ñëpp ñoo yem ci réew mi kenn ëpple wu fi kenn kenn gënu fi kenn ci ay àq yoo xamante ni am nañ kon loolu mooy li nga xam ne moo jiitu ci lool boo demee nag ci constitution bii fi nekk ba tey muy 2016 bi article 7 ba article 16 lépp chapitre boobu ñu ngi ko jagleel ci droit citoyen ak ay devoir am ku ko liir da nga ko euh, euh, da nga ko mën a xam ndax waxtu bi dafa xaw a xat Eh, Cheikh Amadou Fadal indi na ci ay tomb yu am solo waaye ci njëkk rek te nga xam ne xëy na mënuñ koo ñàkk tudd te fàttali ko mbooloo mi muy eh, liberté bi ci njëkk mooy nit ki dafa am sañ-sañu moom mu nekk jëmmam jox ko tur bu baax wala jox ko tur en tout cas ba sax ci àqi nit yi ci loi réew mi jaaduwut ñuy jël aw sant nit di ko jox maanaam nit ki mu juddu sant nenn ñuy sensé wu santam loolu lu waaye Sénégal ci code de la famille da ko aaye daanaka président rek xëy na moom lañ jox yoon mu mën a changé santu nit comme ça nit da maanaam aw askan ni ko islaam terale ngay sàmm deerub doomu aadama ba ci Sénégal aw sant nit kenn sañu ko changé daanaka man ma sant nii ñu ne damaa war a sant neneen loolu ak sama àq joo xamante ne kenn mënu koo kenn mënu koo changé kon loolu li ma jublu mooy àqi doomu aadama ba ca njëkk mooy nit ki xam ne moom lii lañ ko may ci sàtt réew mi mu am ay këyit mën a vote ñu mën koo fal mën a jàng mën a am wér-gu-yaram mën a dund fu baax environnement boo xam ne bu baax la ba kenn du ko sëñta fekk fu mu nekk ñu dem di ko yóbbu ci àll ko fii ngay dund par force yooyu yëpp kon constitution bi ci ak tënk rek da koo garanti nit waaye bokk na ci àq yim la may mooy wax sa xalaat ci kaw doo doo yàq kenn li xew jamono ji daanaka muy wax lu la neexi rawatina suñu kilifa diine yeeg ak yeneen kilifa yi dëkk beeg yooyu yëpp saaga yeeg yooyu yëpp ci biir loolu du ay àq àq yi daa am fu mu yem mooy may nañ la nga wax sa xalaat waaye nag bul xañ keneen àqam ak ay droit wax na fi nit ki am na àqi mu liggéey nit ki am na àqi mu jàng am na àqi wér-gu-yaramam am na àqi yu baree baree bare ak bokk ci diina ju ko neex rawatina ci tariixa boo xamante ne tamit moo ko neex ak yeneen ak yeneen daal yoo xam ne tudd na ko fi xëy na waxtu yi moom moo xat ba duñu mën a indi yëpp waaye nag ay devoir tamit am na ko muy lan sàmm réew mi sàmm lu ñëpp bokk bu fekkente ne am na loo xam ne réew mi laaj na ko lu mel ne fay ay impôt wala yooyu tamit say devoir la yooyu tamit nga daan koy def fexe tamit ba say doom ñu jàng ci eh, jàng ma war ba lépp loo xam ne jàmm tamit danga koy saxal ci biir réew mi loolu tamit ay devoir la yoo xam ne yow yaa ko yoral biir réew mi kon loolu yi eh, eh, sëñ bi junj na ko waaye waxtu wi moo xat ba xëy na duñ mën a indi tomb yëpp yi nga xam ne wax na ko kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci leeru waxtaan wi ak am solo goo xam ne am na ko solo muy waxtaan woo xam ne ñëw na bu baax a baax a baax ci jamonoom ndax fii àdduna toll ak fi jamono toll daa baax nit ñi ñu jàngataat yu mel nii ku ne xam fa sañ-sañ say am ak fa sañ fa say wërteef yam am fa say àq am boo nga xam ne doo mën a lor keneen te da nga woote jàmm ci réew mi woote jàmm ci ñi nga xam ne ñoom ngay dundanteel te loolu moom la islaam moom la islaam indi woon kon ñu ngi lay sant bu baax te lay ñaanal bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci mbooleem jumtukaayu euh, xarala yi ñu mën a topp waxtaan wi ci MK TV ak ci euh, réseaux sociaux yëpp comme set ci waxtu wi ci 17 set 30 ba 19h suba it incha allah am na waxtaan wu am solo woo xam ne dana am fii muy al iraada as sadiqa ixtixaadun wa suluk maanaam murit bi nammal dëgg dëgg la war a am ak yan ak yan moom moo war a aju ci euh, yu mel noonu suba danañ ko jàngat incha allah ki ko war a def di mbokk mu baax di borom xam-xam muy Serigne Afia Niang di suñu sëriñ di suñu lépp di koo xam ne tomb yu mel nii dana baax ñu ko koy euh, yàgg na ko euh, waxtaani man na ko bu baax waaye fu jamono toll rek daa war a indi ñu fàttali leen di ko ba xam lan mooy tax ñu jariñu ci sëñ bi lan moo ñuy def ay dëgg-dëgg ay murit saare kon ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allah ñu bàyyi xel waxtaan woowu di ñaanal euh, ñëpp ñu doon diglu di ñaan suñu borom nangu koor gi te defal ñu tawféex yu baree baree bare barke xaari bu Mustafa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.